alayhi wa ala alihi wa asxaabihi wa zurriyatihi ajmain mbokki jullit yi ginnaaw bi nu sante yàlla tabaraka wa taala julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallama ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ak ci jëmmam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw si nag ñi ngi beral nuyoo sunu njaati gi soxna Maymuna Ndour Faye di ko ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal yàlla wér ak wérle mucc ak mucc le ndogal bii nga xam ne dal na ci kawam yàlla na doon ak yëkkatikoom ba faw yàlla na doon ak yëkkatikoom ba faw yàlla na doon ak yëkkatikoom ba faw yàlla na fi 7TV doxe tiim télé yépp ci barke alquranul karim yàlla nag buy buy defar day mel ne kuy yàq waaye ak defaroom ak defaruk 7TV ak sunu defaru ñun ñëpp yàlla na jaare ci lii soxna may mën ñu ngi lay ñaanal ku la xaar yàlla na xaddi ku la jonkatu yàlla na jaa yàlla na jaaxaan euh, mbokki jullit yi dellusi nañu ak seen émission tafsirul quranul karim bi ngeen di ànd ak seen mbokk al imam Mouhamadou Lamine Gueye xaadimul islaam muy le serviteur de l'islam wala nga ne bokk booyub l'islam bokk wala neexee sax nee ma booyub l'islam waa man daal bu fekkee dafa am ay bagaas yu ñu bëgg ku ñu ko sëf te bagages yi di bagages yi l'islam man pare naa sëgg doon mbaam mi ñu sëf ma ko ñu sëf ma ko bu fekkee dafa am mbalit mu ñu bëgg sot ji ca sën ba te mbalit mi ñu bëgg lislaam yóbbul leen ko nañ ma ko sant ma futteeku takk sama ndigg tonni nimbalit ma ci turu yóbbu ko ca poubelle ba fa dellu si nañu ak yéen ak seen émission tafsirul quraanul karim démb nag ñu ngi taxawoon ci aaya wala xad makkannaakum fi l wa jacalnaa lakum fiha maayisha qalilan ma taskuruun tey ñu war a tàmbalee ci boppu aya fukk ak benn ak benn ci suuratu al aaraaf muy walaxad xalaqnaakum tumma sawarnaakum tumma qulna lil malaikati usjudu li aadama fa sajadu illa iblisa lam yakun min alsaajidin yàlla nee na wala xad xalaqnaakum nun yàlla ñoo leen bind gis nga yàlla buy wax dafay glorifier boppam ah inna nahnu nazzalna ñun ñoo wàcce inna anzalnaahu ah inna ah fo saa boo déggee yàlla ne inna maanaam ñun ñun dafay mel ne yàlla kon xanaa yu bari la ba tax ñu naan ñun déedéet yàlla bu nee ñun loolu hadihi euh, l kalima tushiru ila azamatihi wa ila quwatihi wa ila waxdaaniyatihi wa ila ilmihi wa ila iradatihi wa ila qudratihi allahu akbar loolu mi ngi joxoñ nekk gi mu nekk di yàlla moom kot waaye loolu mi ngi joxoñ kàttan gi nga xamante ne moo nekk ci moom moom rek waaye loolu mi ngi joxoñ dogal yi nga xamante ne moo nekk ci loxoom moom rek waaye loolu mi ngi joxoñ joxoñ xam bi nga xamante ne moo xam lépp te dara échappé wu ko waaye loolu mi ngi joxoñ sañ-sañ bi nga xamante ne ci loxoom la nekk te ndoxul nekkul ci loxol kenn waaye loolu mi ngi dogal màggaay gi nga xam màggaayu xarkanam gi nga xamante ne dara melul ne moom yooyu daje ci moom moo tax mun a nun yàlla waaye nag kenn rek la al ahadul fardu samad allazi lam yalid yu la walam yakun lahu ko ahad mooy kenn mooy càppaacoli amul ndey amul bàyyi jurul kenn te kenn juru ko te kenn du ko amul opposant am na opposant nag waaye amul dent kuñ koy dendale am nay opposant nag ndax ba tey am na ñu ne yàlla amul am na ñoo xamante ne nee nañu donte am na toppuñu ko ci ay ndigalam ay santaaneem bàyyiwuñu ay tereem waaye nag amul ndend nag nawle déedéet loolu moom amu ko moom yàlla nee na naa koom maa leen bindoon thumma naa koom it maa leen melal ni ngeen mel du kenn nag man mii la yàlla moo man yàlla moo man te yàlla moo man te yàlla moo man est-ce que xam nga ni amul benn nit bu nuróo ak moroomam à cent pour cent ñaata milliards de personnes moo dàggu ci kaw suuf si la ko dale ci aadama ak xawaa ba sunu jonn yàllay tey booba bés pénc amul kenn ku nuroo ak moroomam a cent pour cent ko xam ni danga naan kii daal dara teqalewu leen amul li ci gën a yéeme nag ah li ci gën a yéeme nag li yàlla di wax naan te suratul euh, qiyaamati balaa qaadiriina ala an nusawiya banaana est-ce yàlla ñee na dinaa leen dekkal ci seen biir bàmmeel yi ba kenn ku ci nekk danaa ko delloo ay empreinte am allahu akbar gis nga wax gis nga kàddu gi bokk na ci kàddu yi wane ne yont yàlla Muhammad yàlla moo ko yónni woon parce que ci au sixième siècle boobu nit ñi xamaguñu woon ne ndekete kenn ku ci nekk nuroowu loole ak sa moroom ak empreinte ay siècle dox na fi ñu avant avant découverte boobu di soog di am ndekete kenn ku ci nekk sa cati wey yi sa cati baaraam bii dessin yi ci nekk nuróowuloo ko ak amul kenn ku ko juróole ak sa moroom la ko dala ci maam aadama ak xawaa ba ba àdduna di tukki kenn nuróolewu ko ak sa moroom allahu akbar seet yàlla nee na man maa leen dessineel sama bopp loolu maa ko rëddal sama bopp loolu waral bu ñuy wut da euh, passeport wala d'identité wala ay document administratif ñu ñu jël suñu empreinte yi ndekete kenn kenn kenn bu yeboon a ngeen nekk ay seex Ousseynou ak Assane wala Adama ak Awa seen empreinte yi ñu roowul yàlla nee na maa leen melal kenn ku ci nekk ni mu mel maa leen dessineel sama bopp de waaye nag mu ngay delloo wax ja ci maam Adama ba mu ko bindee ba noppi mu mel ni mu mel rafet lool taaru lool ci biir malaayika yi su maqul naa topp ñu wax nag leel malaayikati ñeel malaayika yi usjudu sujjóot leen di aadama ñeel aadama yàlla ni malaayika yi ah gis ngeen sama créature bi ni ni mu ni mu taaroo gis ngeen ko ni mu rafete ak ni mu mate ak ni mu jongama maa ko dessiné maa ko bind ci sama loxo bi bii aca sujjóotal leen ko sujjóot ba nag du sujjóotu ibaada du sujootu yi jël sa jë ak sa ñaari ténk ak sa ñaari óom ak sa ñaari ndëggu dëpp ci suuf loolu yàlla rek lañ koy defal loolu yàlla rek lañ koy defal waaye nag sujudul inxinaa la gis nga boo demee fu mel ne daaw me réew yi lu mel ni eh, eh, Togo walla Benin ah côté yooyu mooy daaw me seen buur yi bu ñu leen di nuyu dañu incliné wu mel na kuy xaw a sujjóot sujjóot bu yeggul ah sujudul inxinaa la ah ah ma ngoog <coughs> ma ngoog li takrimi laa lil ibadati loolu dañ koy defal seen buur yi pour leen ko màggale waaye nag du pour jaamu leen su jot bu mel noonu la yàlla waxoon malaayika yi su jotul ko moom aadama alayhi salaatu wassalaam pour màggal ko pour teral ko su jot adama acca yéen malaayka yi su jootal leen fa sajadoo ñu su joot ñoom ñépp illaa iblis lu dul iblis lam yakun moom di nekkuloon mi ne sajidina bokk ci way su joot ña ah laa hawla wala quwata illa billah malaaka yépp su joot iblis ne lànk ne man du ma su jootan ah. du waaye boo dégloo wax ji dangay xam li tax ibliis bañ a sujjóot ndax yàlla dafa wax ne summa qul naa topp ma wax lil malaaikati ñeel malaaika yi ama iblis lam yakun min al malaaika iblis du malaaka iblis jinne la <laughs> gis nga li ñu naan xale bu réewee Eh, dinañu ko nettali loo xam ne ci ay waajuram xamu ko woon te ko woon xamu ko woon te yëgu ko woon iblis laanatullahi alayhi yàlla na yàlla rëbb ko ndeke li muy yàgg-yàgg ci malaayika yi am xam-xamu malaayika yi supérieur leen ci xam-xam pourquoi parce que jinne la kon donc yar na yor na dina yor expérience su jinne waaye malaayika yi ñoo ko yar kon dina am xam-xamu kon moo leen supérieur ci benn côté te société ki ki supérieur ki ëpp xam-xam ki gën a xereñ kooku lañu war a jiital yàlla jiital ko ci kanamu malaayka yi mu nekk seen sang booba ma nga tuddoon aza zilu aza zilu noonu la tuddoon waaye bi yàlla ne malaayka yi su leen su malaayka yëpp su jóot moom mu lànk ne su jootuma par orgueil ah or li ñu naan orgueil mal placé orgueil mal placé xam na ne foofa la bokk ah yàlla nee na fa sajadu ñu sujjóot ñoom malaayika yépp illaa iblisa ba mu des iblis lam yokkul mu ne sajidina bokkul te ñu sujjóot qaala yàlla wax nag loxoo ñeel ko moom iblisa taajuban aw su aalan xanaa dafa yàlla dafa yéemu ci jaamam bi pourquoi ma dox joxe ordre moom nangoo ko exécuter ah daf koy laaj rek maa manaaka qaala boo ko déggee rek mooy qaala allaahu lahu yàlla ne ko maa manaaka maa ana lan manaaka moo la teree allah tasjuda nga ñàkk a sujjoot is amartuka bi ma la diggalee qaala mu tontu ko ne ko ana man xayrun maa gën minhu ci kii nga may sujjootloo ci moom gis nga xeebaate baaxul bari na ko bari ana koy xeeb fekk ne sa sang la moo la gën bari na koy xeeb ah di ko xoolee bëtu suufeel fekk wallahi sa sang la moo la gën ci yàlla moo la gën ci yonent bi moo la gën bés penc di nga xam ne du sa morom iblis ne ko ana man xayrun maa gën min hu ci aadama mi yàlla ne ko lu tax nga ne yaa ko gën mu ne xalaqtani yaa ngi ma bind min naarin ci safara ah dafa juum xalaqtani min nuurin la bëggoon a wax yaa ngi ma bind ci leer li annal malaayika ajsaamun maxluqatun min nuur malaayika yi la yàlla bind ci leer ah waaye jinne yi nag yàlla ci safara la leen bind malaayika yi bu ñuy dee dañuy seey waaye jinne yi bu ñuy dee dañuy tàkk ba jeex parce que safara lañu ci safara la leen yàlla bindee ci safara la leen di delloo comme ni mu ñu bindee ci suuf di ñu delloo ci suuf waaye yàlla fel làmmiñ bi mu bëggoon a wax xalaxta mi min nuurin yaa ma bind ci lumière yàlla fel làmmiñ mu ne xalaxta ni min nuurin yaa bind ci safara yàlla ne ko waaw kay tegal foofu sa baaraam ma wax la nag ni ma la bindee ci safara. kon nag dafa mel ne sama technicien Mouhamed Ndour mi ngi may signalé ne li ñu amoon ci waxtu jeex na. waaye lu jiw wa jeexul jógu fa de nii de laa fas yéene jàpp ak yéen rek incha allah ba koor gi jeex comme ni ñu ko defee at yi passé yépp rek yàlla na yàlla may ñu yeggale ko ak jàmm te yàlla na yàlla nangul nu nangu leen nangul mboole mu jullit kon dañuy teg foofu sunu baaraam rek ba ëllëg ak jàmm ci waxtu wi ngeen doon ci ànd ak seen mbokk al imaam Mouhamadou Lamine Guèye xaadimul islaami min daanu islaam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bismillahi rahmaani rahim. الحمد لله رب